amuñu benn problème nag wax dëgg naa la làmb moo ñu boole ñu war a bëri bu jeexee bu jeexee jeex na waaw làmb rek moo ñu boole mosuma ko def lu ñaaw mosuma ko wax lu ñaaw waaw làmb moo ñu boole pare jeex na Cheikh at Jaam eh, dafa yor say audio yow yor audio Gora Sock audio yooyu yan genre audio la lan hmm. yan audio loolu après la loolu lu fii waxu fii de <laughs> non non loolu waxu fii. mais <laughs> loolu waxu fii la. en tout cas ji li ñoom ñaar ñëpp ma ko su ma su ma ko yorante ngeen audio audio bëriwul ah. su ma ko daanee pare dinaa ko wax lu muy tere dinaa ko am lu ma koy tere. am loo koy tere waaw su ma ko daanee pare. mbaxane muy kër ga. koy jox. mbaxane mi kañ ñàkk na ko moom. lu tax mu ñàkk ko. Ah, hmm. si moom. mais ji moom daggit la yor defe naa daggit mu xam ñoom ñaar lan problème Gora Seck amuñu benn problème man moom làmb moo ñu boole làmb ñu war a bëri jëflante xeex bëri uh-huh. loolu la ñu boole ñu uh-huh. amul leneen lañu boole dafa bëri Cobra Cobra nekk géant waaw nekk champion ci làmb mu daan ko ngeen tolloo yaa Cobra même pied d'égalité ni ngeen toll yi Gora Seck bu arbitre prix mu dox sa kaw lan lañ fas yéene gis ci Fils de Balla man duma Cobra boy hmm. waaw hmm. loolu laa duma Cobra góor soog bu doxee sama kaw dootoo ko dolli. Hmm. bu doxee sama kaw moom moom moom xanaa leen la ñuy waxat moom. Ah. mais si dox sama kaw moom amu fi. waaw ah, maa dox ci kaw mais moom dox sama kaw. mais moom moom lañ jox favori gis nga. waaw man luy góorlu ma la ñu ma favori. yàlla yàgg bëri ñu leen jox favori ñoom. man mosuma bëri mbër ñu jox ma favori mosul hmm. ah. saa mu ñëw yàlla na may suturaale man naay daan rek daan laa xam. Hmm. xaw ma ay favori yëpp deuxième la. daan am solo ci gis nañ ñu ne bëre yi bokkul. Mhm. ndax ñi ngi dégg ñu naan Fils de Balla moom zongole lay def. Mhm. xam nga te góor a soog day mbapat. di mhm. dem ci lutte simple yi. ci cadre bëre bi ñeme nga bëre a soog. général ma bëre moom lan la ñu waxoon. mbëru simple mbëru simple laa ko daanee. ci bëre mu ngi noonu jeex na mun naa mën a bëre. mais góor a soog arbitre ñëpp xam nañ ne bu arbitre ne prip day daw pakete say tànk. bu ma paketee déggoo la su ma ko dóoree su ma ko dóoree mu xam ci biir làmb ji Gora Sock billaay walaay bu ma pakatee ma dóor gu mu xam ci làmb ji baa mu dee si làmb ji wóor amul fi di pakatam ñu duñ benn hmm. ndax man damaa sàdde samay tànk moom fees del entraîné ba ne ñàbb barki sëñ Bamba bu ma pakatee bu Gora Sock bu ma taxaw jot jox samay tànk hmm. barki sëñ Bamba ma taxaw jox ko te du ma yëngal Gora Sock barki sëñ xam nga Gora Sock mi ngay wax bu baax lan la mën dama koo xam bu baax a baax lan la mën loolu ma ko mu koy nëbb rek. yéen ñaar xeex ak bëre lan moo ci. lépp la ñuy def lépp. dinañ xeex xeex bëre. ñu bari ci làmb nee nañ combat bi combat Modou ak Balla Gaye. waaw dañ koy confirmer. revanche la ah. ñëw ñoom bu ñu ñëwee ñu dogaliwaat nañ rek ñoom yamuñu ah. ñu jàng daa koy seetlu. muy Gora Sock. gisuñu mu bëre combat bu diiree. ak adversaire lu mu mënti mel bu arbitre ne sa kaw la jëm bëre ak yow ay secondes dañuy gis rek nga mën a bëre combat ndax yaa ngi bàyyi xel ci combat bi mu am. man déggoo man combat bu gaaw bu yàgg laay bëre bu ko neexee ñu yàggal ko bu ko mu gaaw ci moom lay dépendre rek man xale man maay maay diriger làmb ja li ma waxoon général lan laa ñaan taxawal. waaw yow tamit man ñaata ponkal laa fi diriger. ñaata ponkal laa fi diriger. kan moo diriger sama combat général kan moo diriger làmb ji. Ah, kan moo diriger maa diriger làmb ji maa dóor daw songu. maa dirisa lam man ah, lépp maa koy def li ma ko koy wax mu taxaw moom la ñoo nekk moobul rek maay dox ci kaw maa koy bëri maay daan. est-ce que bëri nga ak gën a danger ñoo xamante ni gën a danger waaye man ñi ma gën a bëri la ñi ma gën a ñi ma bëri gën a danger foofu. looy wax nii si man ñi ma bëri góor soo bëri la ñoom. comme ñan bëri ay Balla Gaye junior gu leen daan Tafa Leer. général Malika moom de bëri naa jëm téere. waaw bàyyi ma waay yow bëri naa Tyson 2. waaw ñoom ñooñu Tyson 2 da koo daan ñëpp dañoo os ci laaw bu muy bëre Cobra man xam naa lépp nu mu demee bu muy bëre Cobra lépp xam naa nu mu demee. nu mu demee lépp dama koo xam. xam naa làmb ji nu mu commencé A ba Z mais du ma ci wax. Hmm. sama yoon nekku ci loolu bëri na daan na ko moom la. Hmm. voilà mais man du ma Cobra du ma ñëw ñëpp. Hmm. fii sa bala nga wax ne ay ñoom Cobra. maa ñoom duñ benn. ñëpp dañ la doon xaar. ñu gis benn moment nga tardé ba say morom mbër yëpp ñëw nañ ngay doog a ñëw combat bi ñu laaj ñu ne Fils de Balla daa ci lu mu nekk daa mel ni da ngaa favoriser mystique de. ci mystique nga ne man entraînement laa gën a favoriser que mystique bi si combat bi. foo demoon damaa génn. maa doon nelaw. non non non nelaw Fils de bi nga ñëw sa kanam. dama doon nelaw wax dëgg naa kanam kanam bu doon nelaw. dama doon nelaw laa tëddoon di nelaw damaa sonn nag. Hmm. damaa doon nelaw nag. parce que gars yi ne léegi a focaliser wu ci mystique bi. est que làmb ji moom moo laaj. non non entraînement yi daal lañ fa lañ gën a farataal entraînement yi. ñi nga àndal. Ah. dañu wax seeni biir wax sànq. Mhm. di wis ne combat lu ne la leen jaral. jaral la ñu bi ma lan moo tax mu jaral leen loolu. combat kapital la. caaxaanee ñu ko sax. fii du suñu place fi ñu nekk du suñu place. dañoo war a yéeg fekk ñu bëri suñu mag yi si kaw. ñii du max ñoom la waaw man ñii Zogo Rosog teguma ko sama bët. ñaax hmm. adversaire ma dugal si moom. voilà. waaw comme lan. waaw. non ak ma ko respecté man kañ ma respecté naa ko moom moom respecté wul. waaw mais mooy préparé te am doom kii confiance. est-ce dee. ñu ma dara sama xel moo dal rek damaa wóolu sama bopp rek. est-ce que nekkul général bu Malika. non bàyyi leen général daan naa ko ba pare gën a gën ci waxu général. non non nañ xoolal looloo tax ñu nga yaakaar ne ku nekk sa nañ bàyyi waxu général nañ général bëri nañ ba pare daan naa ko nañ wax leneen góor a soog la ñu wax mais continuité la wax dëgg parce que est-ce que nekkul tamit adversaire boobu tey fi mu tolloon ak yow ni ko def daanee à la manière bi moo tax léegi nga yaakaar bu nekk sa kanam rek euh, comme confiance man ñi may bëreel ñëpp dama leen jox cër man mosuma bëri mbër ñàkk laa may jox ca war a respecté ma la Mm. man ma bëri a leen jox cër. Mm. waaw ba ma lay ba ma lay daan nag dama lay jox cër. Mm. boo paree tamit ñu seqaat jàmm si boo ko ñu ci bëri ni sa combat yaag euh, bi ngay bañ a dégg yaag général Malika da rëcc sa diggante ak a Gora Sock est-ce que di nga rëcc. yàlla naa yàgg di rëcc rek yàlla ma yàgg naa yàgg di rëcc rek <laughs> incha